attention. Charles 30 secondes pour terminer. oui mais s'il te plaît quoi il est en train de faire un mm. jeu mais moi je vais remettre les choses à leur place. Mm. bu fekkente ne yow oustaz. Mm. jigéen bu romb. mais man wax ma sax Cheikh. non yow laa wax yow Sène laa wax yow. oustaz Sène Cheikh Lamine Sène. waaw Cheikh Lamine Sène yow oustaz. bu jigéen romb la fii. mu nar la takkaloo ak sa sago. nga xoolaat sa bopp. nga ni bu jigéen rombe fii. nga nar tàggali koog sa sago nga war a xoolaat sa bopp léegi nag allez oustaz voilà loolu du ma tiital. Euh, je veux faire d'une pierre <laughs> plusieurs coups. moi je parle pas de coups hein c'est vous qui en parlez. et ça et ça c'est révélateur de parler non non bu ko déglu oustaz. non non non non non non ose dire parce que ma commencé ci booba. mais ping pong bi moom ma ci ma ci bu soom oustaz bu mel ni wallahi lazim léegi parce que damay sóoraale kilifa diine tu de nudité moi je mets ça ici dama koy teg fii dama ciy ñëw tu as parlé de de de d'animal dama koy teg fii mais booba sànq euh, bi sa waay di waxee nañ ñaan yàlla jàpp ñaan ñaan da ñaan ñaan dafa baax quoi ñaan arme la mm. yonent bi dafa ko wax mm. dafa ni du'a silahul mu'minin mm. da ngay toll ci situation da ngay ñaan mais nit lu mu def loxo ma nga ci biir euh, booba léegi bi soxna si xam nga ku wax problème mu ci euh, der moo ko wax bi mu tuddee le le le gars ki yore footballeur yi xale yi. Mm-hmm. bi ba xale waa ji tubaab bi. waaw ah, yow da ko ni nañ ko jël teg ko fee. ah n'est-ce pas loolu nga wax nga loolu de ah léegi kon daaw mën nañu ko dugal mais mën nañu ko dugal oustaz tamit oustaz du yow yaa animé émission bi non non non mais il a non mais il a le droit de rebondir sur ce que tu dis je n'anime pas ça ñi ngay interpellé moo bëri yow da ngay commencé bi dal ko de sama père a fi ñëw yow vraiment il est sur la défensive da nga bëgg il est sur la défensive da nga ci génn nag Bouba je suis sur la défensive et puis Bouba Bouba yaa fi dàq wax bu ma dagg may ma Bouba bu ma dagg bu ko dama lay dagg parce que bu ko daggee a que man man buuba ay waxam dafa may daaneel hmm. waa léegi buuba même tuuti hmm. léegi jàngale la ñu wax yaa ngi dégg kon man tubaab boobu du ma ko ci génne ak keneen ku hmm. jàngale leneen mais du ma ci génne la ko mais waxuma loolu il faut bu ma wax loolu ko jiiñ dafa yegg ci ay xale dafay def ni ma ne nañ ko jël teg ko na le dama ne la na yoon jëflanteeg moom li mu war a jëflanteeg moom man fi ma engagé c'est xale yi ñuy exposé si loolu laa wax. mais affaire le fait benn la def bi benn la rek. déedéet du benn de. ah, ah déedéet benn du benn du benn pédophilie jàpp ay koy defee rek Charles. Mm-hmm. mais pédophilie pédophilie la. mais ah non non non non pédophilie pédophilie la. mais on parle des enfants on parle bi def ko. que bi ci biir kër gi nijaayu xale bi def ko c'est la même chose mm-hmm. que nit ki def ko doomu jiglem c'est du pareil au même buuba loolu fekk laa bëggoon wax mais c'est pas méchant mm-hmm. bref nudité ñun duñ ko nangu fii lay taxaw di wax ak islam booy wax affaire yu nudité kilifa yi déglu ñi dégg tubaab xam luy nudité mooy yaramu neen nga di dérangé wul africain mosul dérangé africain am na ñu mu dul dérangé mais ku ni an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan ju génnee yaramam daf lay dérangé parce que yàlla moo ni yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajik wa banaatik wa a l-mu'miniin yudniina alayhinna a jalaabiibihinna daalika adnaa an yu'rafna non non non attends non non non Oustaz non mais buuba déedéet xoolal aaye ngay dindi teg ko fële duuma ko bañ non non non non dañu ba parce que xamal ba ci wolof lu leer mais ci wolof laa jëm. kon léegi bàyyi leen seen tubaab yi. aaya yi ngay bàyyi du ma bàyyi aaya yi nga fekk maa ngi toog fii. honorable nee leen ma dañ ma bàyyi wax sama aaya. wax la nee leen ma. mais kii daal lu gàtt la mais dama koy firi. waaw mais nit day wut cëslaay. mais man dama ni yàlla nee na. c'est vrai ah, mooy ay référence am et puis Charles Charles s'il te plaît même si tu n'es pas d'accord on l'écoute. waaw écoutez-moi laissez-moi terminer au moins. Ah, waaye buuba buuba Moussa buuba bu ma dagg waay. ayca waxal buuba nag xam nga lan la mënoo maa tàqaleeg li nga xamante ni moo tax ñu naan ma oustaz. Mm-hmm. waaw mais mën nga kii rek waaw mais maa ngi ñëw rek borosal rek. avancé non non boros bi c'est-à-dire pour ñun ñi suñu àll maag moom suñu àll. waaw ma ne ma ne mais l'émission n'est pas pour vous. Mm. non on mais non non mais nous représentons. mais bien sûr ñun lantinoor mais c'est ce qui suivent les émissions. mais c'est ça les émissions présentement. mais ñooy la oustaz ñooy lantinoor gi. mais attention il faut tenir attention attention. il y a des des kilifa ñoo leen hmm. tey jii mën na am benn xalifa général sax boo xamante ne bii mën na toog nii di xool. Hmm. sëriñ daara toog di xool may ma ma ñëw rek sëriñ daara toog di xool ñu ne oustaz Baba ne ñun la fa toogal hmm. eh dinaa yëkkati aya ah, bàyyi leen ma moo daaneel ko lu gàtt la rek ah, ah, bu dee lu gàtt kañ baax baay waaw léegi bàyyi ma nag léegi d'accord yàlla moo ni Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam kay bàyyi loolu moo li leen di la jig moo ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal say soxna ak góor ñi nga xamante ni ñii ay jullit lañu nañu roy ci yow ci wax seeni soxna ñoom ak seen doom yu jigéen ne leen mm. nañu fexe ba nañu am un port vestimentaire décent maanaam nañu muur seeni yaram yàlla ni daalika adna an yu araf na fala yu zeyna loolu mooy tax ñu xam ni ñii ay jigéen lañu bu ko defee kenn du leen yàpp parce que jigéen ju génne yaramam ci mbedd mi ak jigéen ju sangewu ci wàllu euh, yéreem defe naa ni ki ñuy gën a mën a topp tooñ ko mooy ki caaxaane boppam ki ki génne yaramam mm. bon loolu la ñu jàngal léegi nous sommes des animaux d'accord entre guillemets nous sommes des animaux mm. mais tey jii des animaux réfléchis parce que alxuraan li mu ñu jàngal mooy xel. wuyu ma Charles defal dànk. mais j'ai parlé de conscience. non mais fa laa jëm si. parce que lu ngeen fi indi lu nekk alxuraan mooy dustuur bi nga xamante ni kenn mënu ko contourner. Mm-hmm. yàlla wa man asdaqu min allahi xadisa amul ku gën a dëggu yàlla ay wax mooy sama mm-hmm. base. laissez-moi mm-hmm. terminer. yàlla moo wax ne. gis nga xel dafa am ay mbokk. yoo xam ni gis nga le pédophile laa kuy péd nekk pédophile mais doful am na xel. xëy na dafa feebar. mais am na xel mais feebar. non waaw dinaa la wax lu tax xel mi feebar. Mm-hmm. xel mi feebar lu tax. très bien parce que xel benn affaire bu tuuti la balaa nit kiy jëf wala muy wax xel dafa war a tàggu ay mbokkam balaa muy agir. Mm-hmm. soit balaa muy wax. Mm-hmm. xel dafa war a tàggu ay mbokkam balaa moo jëf xel dafa war a tàggu ay mbokkam je prends un exemple tey jii Cheikh Lamine xool na benn xale bu tuuti bu am 8 ans. kenn léegi. ma ma nekk ko feebar bëgg àgg ci moom. Mm-hmm. sama xel rek moo ko gis ne dem ci moom. Mm-hmm. sama xel bi ko gis xel mi moo ma naan demal demal demal mais dafa am lu ñuy wax ci alxuraan tazkiir. Mm-hmm. annuha atadabbur at tafkir dafa damay bañ mu ne ma bul wax al itibaar yooyu yëpp mooy ay rappel ay bienveillance ay ay discernement yooyu bu fekkente ni bi boole nga kook sa xel le rappel le discernement la bienveillance ainsi nga xamante ni balaa balaa ngaa def yëpp day taxaw. Mhm. kon di nga taxaw téye sa bopp. parce que mhm. xel dafa am ay mbokk. Mhm. saa bu xel xalaatee. wax nit yow li ngay wax ni mooy nit. waaw waaw très bien nit. très bien léegi nag li moom mooy. exactement bien ses dysfonctionnements. effectivement en fait man j' en. tu n' as que trop bien compris laissez-moi terminer. laissez le le ou le sëriñ. bu ñu jël ñi ko demal jàng ji wala mu dem jàng pour dem jàng ji mais il est là il a été formé pour quelque chose il veut mettre en pratique les compétences pour lesquelles il a été formé mooy ñëw jàngale alquran yaa ngi dégg mais su fekkente ni feebar boobu dafa nekk ci moom ni mu mën a nekk ci moom noonu la mën a nekk ci tubaab bi nekk ci keneen ak keneen mais loolu dañ koy condamné dañ koy condamné kenn waxul ni kenn na ko def li ci des mooy lii honorable wax honorable jërëjëf parce que jigéen nga gis nga biir kër yi biir kër yi bu ma dafa am lu ñu te bu ñu ko neenal mooy dafa li am lu ñuy wax ak tarbiya al islamiyya kooku chrétien bi d' na ci keneen ku baax ku nekk d' accord na ci. mooy nga posé benn question oustaz. c' est par rapport laaj ko bu hmm? a compris déjà oui voilà ah non parce bu ngeen wax damay croiser les bras. Hmm? allez-y dagg buubu mukk du la dagg. ah déet boo naree kon guddal moom ñu la. ay ca ay c' est à dire. Hmm. non dama lay tooñ rek. mooy tey jii ci biir kër gi dafa am benn est-ce que waaye man defuma émission di waruma laaj mais dafa am lu ma jaaxal ci réew mi genre baatu genre genre. genre genre. genre mooy. Ah, ah, le genre le genre non non non non ma ne non non mais pas le genre non waaw léegi kon dañ ko teg ci bor waaw mais non non xam nga léegi dafa am non der ci biir kër yi su fekkoon te ne woon ci biir kër yi honorable ci biir kër yi su fekkoon te ne woon tey Bouba Ndour ay biir këram biir këram su fekkoon te ni woon dafa am ay jigéen am ay góor ci biir yaa ngi may dégg xëy na noonu lay doxale mu fexe ba góor ñi fi ñuy nekk. Hmm. jigéen ñi duñ fa nekk. man mun naa wax dara Oustaz. Oustaz mi hmm. hmm. ngi jël suñu émission bi yóbbu ko foo xam ne. <laughs> du woon foofu non vraiment quoi on <laughs> parle de. mais man la man lan laa doon xaar. déedéet man xam nga lan laa doon xaar. j'ai dérouté non non ñu biir kër yi. bi du loolu débat bi mooy. y a des enfants balaa ñu ci génn dem ca daara wala mu jàngale ji ci biir kër on ne parle pas de ça on ne parle pas de biir kër yi góor yi nekkee ni jigéen ñi ay genre ak affaire on ne parle pas de ça sujet bi aussi il faut ñu revenir si mais xam nga pas aussi ñu bu man honorable la am envie laaj non non Charles oui tontul ma mën dem ci honorable s'il te plaît c'est vrai que j'avais oublié que tu n'étais pas du tout d'accord mais Charles Charles Charles parce que il y a des hmm. dimensions xam nga il y a des dimensions yoo xamante ne on n'a pas besoin d'être oustaz ou prêtre hmm. quand on est bien bien équilibré la religion c'est autre chose man du ma mbubboo religion dama ne nit. Mhm. bu summeeku mënuma déranger. waaw yow. non attends pourquoi. il faut loolu tax ma ne est-ce que ku ñuy tabax il est équilibré. Mhm. bu fekkente ne il est équilibré mënu la déranger au point où ngay perdre sa sago. et qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ba ñuy am muy oustaz wala muy ñeneen ah et moi je ne vais pas stigmatiser les mhm. oustaz. pas du tout. Mm. néew ma ci ci loolu mais comment se fait nga nekk ponkalu ba pare boo gisee ay ndaw ay xale ba ay liir nga feebar. Mm-hmm. quelle est la proportion. il faut ñu xool loolu pourquoi boo nekkee enseignant nga gis ay xale yoo xamante ne ñu am 14 ans 15 ans au de le après leur mm. puberté wala ba leur 17 ans bu ñu solo yenn solo yi mënatoo téye sa bopp. lan loolu wax naa ko fii boo ne bu leen suul sama wax dama la ni nit ki bu fekkee ne sa xel sa xel dafa gis rek ci première xalaat mu ne naa dal ci xale bi sa xel bu tàgguwul ay mbokkam ci ngay defee yëfu animal loolu je l'ai bien dit s'il vous plaît parce que bu nekkee oustaz nga et que nga war a dugal tabax nit parce que nit dañ koy tabax mm. nit dañ koy tabax comme kër bu fekkente ne équilibre néew fa am na lu fa manqué. mais kon tu me rejoins. non bu dee daa nga koy sol non xam nga oustaz. mais tu me rejoins. non lu loolu tax ma ne la nit bu summeeku waru la a déranger ba ngay tàggoo ak sa sago sinon da ngay xoolaat. say préfet kooku c'est un autre mais loolu la c'est wax. yow li ngay wax bokkul ak li ñuy wax. nit bu bokk bokkul ak pédophile. mais mais kaay ma wax la. nit bu sumeeku defu yaramu ne defu la dara. bokkul ak pédophile bi ñu wax non kaay ma wax la. boo demee loolu tax war nga a xuus parce que boo demee nga xool nit ki lu muy génnee de sa pulsion bi lu muy ñëwee si moom mm-hmm. parce que pulsion la mm-hmm. pulsion bi muy ñëwee ba le refoulement ba le refoulement oustaz yaakaar yëpp pour que ça ne reste pas un débat entre vous honorable euh, ñu delluwaat euh, un peu ci sujet bi bu ba wax na ko sànq xale yi nekk ci mbedd mi tànk jëlee wuñ leen fi tamit li ñuy jàmbat nii foog naa ni du fi géej ñu leen di rey ñu yegg seen kaw di leen siif muy loo xam ni ni ko ni ko papis waxee loo xam ni la lu doy waar la alors ci liggéey gi ñu ci jot a def assemblée ñu ngi wax ban réponse nga mën a indi ci euh, laaj googu nu ñuy def jëlee fi xale yi. waaw euh, ci loolu. ci mbedd mi bien malheureusement mm. Sénégal dañuy def ay programmes yu bari. Mm-hmm. yu am solo mais duñ ko financer. Mm. par exemple gis nga depuis 2013 euh, ministère de la femme de l'enfant ak léegi ministère de la femme la de la famille. Mm-hmm. du genre et de la protection de l'enfant am na bu ñuy wax. nu euh, mu tudd stratégie nationale de protection de l'enfant boo xam ne sur un coût de huit milliards. Hmm. maanaam la prise en charge de l'enfant commence à partir de la commune maanaam dans le quartier autour du délégué de quartier dafa am euh, benn protection boo xam ne bu ñu def délégué de quartier bi euh, borom kër yi ñu am dans le cadre du conseil de quartier une prise en charge bu ñuy def ci biir xale yi mu dem dans le conseil dans la commune. présidé par le maire le conseil communal de protection de l'enfance où il a même le sous euh, le sous-préfet il y au niveau départemental le conseil départemental de protection de l'enfance par exemple ici à Dakar euh, bi ma bi ma gën a maîtriser mooy le préfet de Dakar mooy président commité départemental de protection de l'enfance où il y a xoolal l'association il y a l'ASC maanaam couche yëpp yi nga xam ne ni xale yi mun nañ wax ci xale yi boroom kër yi mm-hmm. ñëpp ak problème yi ci xale yi programme boo xam ne ne am na fii Sénégal ci ministère de la femme mais malheureusement. Mm.